3. salaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu di ñëw ci benn vidéo bu gàtt rek ndax euh, diggante démb ak tey ñuy interpellé na trop ci situation bi ma lay wax ne boo nekkee ci parti walla nga gëm benn leader leader boobu nga gëm depuis 2014 bi mu sosee parti ba léegi mosulaa wax dara loo xamante ni tegoo ci sa bët te mbir yi leer na ci boppam leer ci boppam koo xamante ni waxtu wu jot la ngeen ca war a def ak taxawaay bi ngeen ca war a am wax na leen ko. jàpp naa ne bu ñu demee ba ne mbir yi un mois deux mois moo ci des tey jii confiance bi ñu amoon ci dañ ko war a yokk mais waruñ koo wàññi kon may wax patriote yëpp nañ focus ci lu ñu dese te xam ne fii lu fi jar découragé wu wala dafi jar xastante wala dafi jar waxatante lu ñaaw amu fi ndax dara xewul ndax président Ousmane Sonko lu waaye di jaay ci projet bi boo gëstoo gis ne moo la ko ëppale fuuf ndax lim ci ñàkk gisuma benn patriote bu ko ci ñàkk. waa ilaa buñ ko doon méngaleel mooy ñi ci ñàkk seen bakkan nga mën a wax ndax combat boo xamante ni bi nga ko yëkkatee dañ la ci dàq sa liggéey góor yi nga ko àndaloon yëkkati ñu ci bëree bëri tey ci daw nañ la bàyyi la te bi ñu ñëw di la woo ne la dañoo bëgg a créer parti li leen waxoon leer na gàntu nga leen gàntuwaat leen ñetteelu yoon ba ci leen wax ne leen dinaa nangu lii ngeen ma wax mais man dama mënut duggantu ci mbir su ma duggee ci mbir damay dem ba mu jeex mais du ma bàyyi te gis ngeen bi mu ci duggee ba léegi liñ ko ci teg tey jii président Ousmane Sonko moomu di wax ak yéen mu ngi ci biir kaso bi kon jàpp naa ne moom lu mën a muñ ñun war nañ ko mën a muñ li wolof di njaay di wax nag moo fi nekk kuy gunge borom biir buy daw bu dawul yow waroo daw kon ñun mbir yi leer na ci suñu bopp waruñoo yem ci Ousmane Sonko namm naa la dañ cee war a boole Ousmane Sonko wóolu naa la te xam ne ñun benn candidat lañu am seul unique candidat muy président Ousmane ko te jàpp nañ ne aspect juridique bi avocat yi ñoo ko yor te wóolu nañ leen liñ ci war a def lépp dinañ ko def. kon nag ni avocat yi amee discipline ba li ñu war a def ñu koy def heure bu ñu leen rakkalee fee ñu dem dugal seen recours ñun militants seen partisans yi li ñu war mooy ñu remobiliser base bi wax ak ñoom te xam ne amut droit découragé ko ndax bu ñu xalaatee suñu rakk yi nga xamante ni ñàkk nañ seen bakkan xalaat suñu rakk yi nga xamante tey nga tëdd ci lal hôpital yi mënatuñoo jóg xalaat suñu rakk yi nga xam ne ñàkk nañ seen bët xalaat suñu rakk yi nga xam ne ñàkk nañ seen loxo lu ñu doon def dañ ko war a yokk te xam ne rendez bi am ak Sénégal yi mooy 2024 bi jërëfi système bi fi nekk def beneen système boo xamante ni day ñëw respecté bëgg-bëgg Sénégal yi taxaw ci bëgg-bëgg Sénégal yi loolu nag mënoo koo bëgg boole ko wax yu sew kon jàpp naa ne Sonko mus sa jël boppam teg ko ne bu dul man dara du baax ndax bi ne Pastef dañoo war a retirer ay fiches de parrainage yu bëri gis nga Ousmane Sonko dafa yebal cinq personnes yu bokk ci parti ne leen dem leen nga retirer ay fiches de parrainage bi waxtu euh, wut ay fiches wati wuti parrainage jotee daf leen orienté ne leen dem leen ngeen parrainer fiche 111 bi. kon noonu mu ko doon defee démb barki démb bu leen jàpp ne xalaatul épresse yi ngeen wax yépp lépp loo leen xalaat moo ne ko gën a xalaat mais nañ ko di am discipline te wóolu ko te xam ne bu soobee yàlla suñu borom man maa leen ko waxati leen ko yoruma kàddu parti bi mais li nga xamante ni naa ko wàcc yàlla Ousmane Sonko du bi lépp lu gën ci projet bi xam na ko te dina ko def bu doon maslaa ak négocier mooy tax mu wanteer projet bi heure yi waxatul ko li Macky Sall bëgg def na ko bu yàgg mais du négocier ci ndoddu Sénégal yi mukk te lépp lu intérêt Sénégal yi na ko te ko def kon maa ngi sàkku sama mbokk patriote ak sama mbokk sénégal yi ñu gën a am discipline te gën a respecté ordre parti bi te xam ne kilifa yi ngeen jiital ay kilifa yu mat kilifa lañ te lépp lu waxtu def ko jot dinañ ko def di profité ci occasion bi nag di rendre hommage maître Khouraïchi si baax te xam ne jàmbaar nit nag ci liggéeyam ci lay defee accident démb xëy na juum na euh, juumte googu nañ ko ko nangul mais nag am maa di ko jéem a xas wala di ko jéem a gi ay toog loolu ànduma ci te duma ci ànd ba àdduna tukki ndax nañ fàttaliku ne doonte démb ak barki démb la doon nañu ko def lu baax kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah. mais sëñ bi man mii dama euh, dugg démb ci panel yi patriote bari di wax sax dem si découragé boobu ngay wax noonu naan jotu ñuy jël suñu carte d'identité jotu ñuy dem élection ne suñu demee dañuy dañuy kii parce que fichier bi. loolu erreur gënu ko mm-hmm. ndax fichier boobu ñuy wax ci lañ demee élection législative làpp ci Macky Sall làpp yu métti. Mm-hmm. ci lañ demee élection locale làpp ci Macky Sall làpp yu métti ak jël dina demee noo xamante ni sàcc bi dootu ci mën a dara nañ gën a remobiliser wu dem jëli carte électeur yi élection yi di ñëw amuñ droit di ci wane benn xar kanamu décoration lépp lu ñu doon def dañ ko war a yokk ndax doonatul voté ngir sens président de la république mais voté ngir sens ab système la ndax système bi fi nekk bu ñu leen bàyyi ñu continuer mooy suñuy junni rakk-rakk yi nekk ci kaso bi dootuñ génnati hmm. ko bàyyi mu continuer mooy président Ousmane Sonko dootul génnati ci kaso bi système bi fi nekk bu ñu ko bàyyi mu continuer mooy suñu rakk yi tëdd ci lal hôpital yi dootuñ wérati ndax tey gis ngeen yéen yéen a dajale seen i ñaar dërëm di faj te loolu état la gis nga état ni mu ni mu ni mu ni mu génne ci askanu Sénégal bi di xool ay nit di leen privilégié leen jox yeneen kon nag yooyu jàpp naa ne naan ay élection yi fiise bi baaxul ay fiise deux mille na nekk fiise deux mille deux li wóor ba wóor mooy nañ jëli ay carte d'identité yi dem voté ji bu ñu voté pare taxaw sécuriser ko ndax élection yi locale législative jàll Touba fekk hmm. ordre bi ñu joxoon mooy ko voté bul génn sa biir fa lañ taxaw xaar euh, résultat yi ba mu génn hmm. ñu gagné leen fii li ñu war daal mooy ni département Mbacké assuré ni dañ am quatre-vingt-dix pour cent mhm. na ko département yëpp assuré booba midi une ñu ne président Ousmane Sonko jël na réew mi kon li ñuy digg militants yëpp mooy ñu nekk ci terrain bi nekk ci terrain bi bañ ko boole wax